turam boobule di Double Less xaritam bu ñu naan Doudou Diagne moom moo ko tuddee jàppoon ne ay loxoom dafa guddoon te dëgër gannaaw nag succès bi nga xamante ni doomam bi di Omar Sakho ñu gën ko xam ci Balla gay 2 amoon na ko turu Double Less mësta fay ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy amateuru làmb ci Sénégal ca casamons ga mu juddoo jaaree ca Gàmbi ga nga xamante ni def na fa juróom-ñetti at gannaaw ba muy tàmbali moom Double Less daal dinay wone njàmbarte ci li nga xamante ni moom mooy làmb waaye nag cawarteem technique ba muy bëree mu amoon nag nijaay boo xamante ni moo daan bëree gannaaw bi way juróom bu góor moom nekkoon jàngalekatu alxuraan waaye nijaayam jooju moom la daan roy ba tax mbëre dugg ci li nga xamante ni moom mooy xolam mu tàmbalee nag lambi joolaa ca stade Émile Badiane naka noonu ci la daal di tàmbale li nga xamante ni moom mooy mbappat di làmbi wolof ñu daal di koy tàmbali mu tàmbali ko jàng gannaaw ci noonu nag kombaam bu njëkk ci arène ma nga doon atum 1972 mu daal di ciy jàmmaarloo ak ki nga xamante ni mooy Doudou Bakassar nga xamante ni boobale combat sax nag ndam demul ndam dikkul wante gannaaw loolu moom daal di nay daanaat Duudu Bakasaar mu sax nag tàmm di ko gërëm jàpp ne kookule bokk na ci li tax tey ñu xam ko ci arène nationale. gannaaw loolu nag ci la daal di tàmbale am palmarès bu rëy rëy nag ci li nga xamante ni moom mooy làmb ci kaw ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ténor yu mag yi ku ci mel ni Ibou Senghor mu dal di itam daan Pape ñaari yoon daan na fi Toubabou Dior daan fi Moussa mooy maam Samba Diaw atum 1973 Robert daal di koy daan waane ginnaaw loolu le loolu moo tax sax euh, li nga xamante ni mooy palmarèsam gën a yokk ndax ci la dugaatee cour des grands ci atum 1974 ba mu daanee ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Guèye même bu dee ne seen ñaareelu combat bi fi mu toll nii ba tey kenn xamul lu ndam la mujjee Youssou Ndour sax ca la daal di inspiré woo woyam boobu mu naan làmb ji fi amoon daaw verdict ba nanuy xaar ba tey waaye moom ki nga xamante ni combat moom moo ca daan ba ni muy génnee àdduna loolu la jàppoon gannaaw nag itam tournée yi mu fi def ak équipe nationale bu Sénégal def na fi ay campagne internationale yu mag a mag a mag moom Double Less ca Montréal ca atum 1976 Moscou ca atum 1980 Los Angeles ca atum 1984 ak la nga xamante ni mooy Jeux africains yi amoon ca Nairobi ak sélection nationale bi boobu boobule mi ngi am fukki at ak juróom benn ci atum juróom benn fukki at ak juróom El Hadj Mamadou Sakho di Double Less ci la daal di rek ubbi ab école de lutte ca Kër Massar ci biir banlieue bi gannaaw nag li nga xamante ni mooy màgget du mbokk te day xëy rek dal ci sa kaw moom Double Less gannaaw làmb la bëgg ak sport mu daal di jël xam-xamam jox ko ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg bëre naka noonu ci la nekkoon di leen jàppale ba tey ji nga xamante ni la ko yàlla jël mu wuy ji boroomam ñu koy ñaanalaat bu baax te di ko jaal ay mbokkam. information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar